Macky Sall criminel. Macky Sall assassin. Lañu la ko de Mamadou Seck. Police criminel. Police complice. Macky Sall assassin. Lañu la ko de Mamadou Sall assassin. Macky Sall Assane police complice rendu le corps de Mamadou Seck jox leen ñu néew Mamadou Seck ko Karim nga xamante ni wax ci yan condition la génne foofu ci pénal bi mais yi nga xamante ni mooy Karim Xrum Xax ak ay ñooñom nañ ci camp pénal ñëw euh, dañ ko dañ ko daal di mais police ah mooy euh, camp pénal arrêté nañu Karim Xrum Xax yéen ngi gis noonu fële ca buntu euh, centre médical bi Karim Xurum Xaka arrêté moom ak ay ñooñu ñu ngi nii pour le moment Karim Xurum Xaka nañ ko fii nga xamante ni mooy euh, direction de l'administration pénitentiaire Karim Xurum Xaka euh, pour dénoncer li nga xamante ni mooy il appelle à la justice pour Mamadou Seck mais aussi li nga xamante ni mooy euh, le décès de Makabou moom itamit nee na pour euh, ñu def euh, li nga xamante ni mooy justice pour ñu éclaircir la inter pour ñu wax ñu exactement de quoi il est question ci yan condition la gaañoo mais il demande aussi justice pour Mamadou Seck ñu wax ñu Mamadou Seck ba xam dee na wala mu ngi dundu donc si dans ces conditions fële ci centre médical bu administration pénitentiaire bu camp pénal fii ah, la lañ ko arrêté ci buntu centre médical bi Karim Xurum Xaak arrêté donc Karim Xurum Xaak ak ñoom dañ leen daal di arrêté pour le moment oto baa ngi ni taxaw xamuñu ba xam dañ koy yóbbu mais pour le moment Karim Xurum Xaak est alors devant euh, centre médical Karim Xurum Xaak il est loolu donc pour rappel juste après le décès de Makabou euh, avant loolu sax la ñu annoncé li nga xamante ni mooy l'évasion de Mamadou Seck euh, ca pavillon spécial euh, gannaaw bi mu amee ay feebar feebar bi nga xamante ne da ko doon jàmbat donc vous voyez Karib Xrum Xax ñu ngi koy yóbbu moom akay ñoo ñoom donc pour rappel je vous dis je vous disais tantôt que euh, gannaaw euh, l'évasion de Mamadou Seck fële ca euh, pavillon spécial bu hôpital bu Dantec dañu administration pénitentiaire dafa woote fii conférence de presse pour xamal ñu c'est dans quelles conditions le requis est que exactement dafa dee comme ni ñu koy déggee ci ay information parce que ñu bëri dafa feebar mais dafa évadé donc c' est bi nga xamante ne moom la ñuy joxe euh, foole administration pénitentiaire avec euh, ki nga xamante ni mooy euh, seen directeur donc mooy information bi ñu joxe mais information boobu le dafa mel ni jël oto juste bi nga xamante ni dee na ñoom dañoo jàpp ne leen torturé ci prison yi mais ki nga xamante ni aussi mooy du Mamadou Seck Karim Xrum Xax dafa jàpp ni dafa dee ñu ko wax nit ñi ba tax na tey li nga xamante ni moo doon point de presse su euh, administration pénitentiaire lu ñu wax du dëgg wala teguñu ko ci yoon wala bokk teguñu ko ci li nga xamante ni mooy ñoom lu ñu mën a digg ndax ñoom dañoo jàpp ni Mamadou Seck ci boppam dafa génn àdduna mooy euh, li nga xamante ni euh, moom la moom la doon laajte fii ci centre médical bu euh, camp pénal ñu daal di ko arrêté Karim Xrum Xax il a été arrêté nañ ko yéen a ngi gis alors c'était l'information phare bi nga xamante ni moom lañ leen bëggoon jox alors lépp fii la xewee ah. ah. station de Keur pour faire membre arrêté tenu par évadé dans ces moo xool comment se rendre danger et que dans ces conditions-là il peut pas perdurer parce que tout simplement moom mi sa vie serait en en danger donc mooy li nga xamante moom administration pénitentiaire de l'autre côté aussi on a eu euh, l'intervention ou bien l'arrivée de Karim pour demander justice parce que tout simplement il pense que aujourd'hui les explications données par l'administration pénitentiaire sont fallacieuses comme ils l'ont dit donc partant de cela il demande Parce que, selon eux, Momodou Sek a rendu l'âme en subissant des tortures, en subissant dans euh, des détentions. Donc, le droit de Momodou Sek, moom la ñu doon laaj fii ci camp pénal bu euh, Dakar deux voies liberté 6 alors ñu daal di leen arrêté donc c'était tout li nga xamante ne mooy information bu ñu leen naroon jox merci beaucoup. gërëm gis information That